milliardaire ba bàyyi ay waxi télé yi ay rajo yi toog fa ma toog yónnee la sama enveloppe toog doo ñëw <laughs> danga <laughs> mais oustaz dafa am ñoo xam ni dañoo mënee bëccëg am ñu mënee guddi pap Sénégal daal li fi am moom senegal rek la am takk sa ñaari soxna ñu yamandoo ci yow ah. nga ni kenn ki tous les yaa ko moom di dem ci kii te ayewul oustaz xale yi dañoo mën samedi alaaji pap loolu pap la yonent bi ne woon ku jëng ci say soxna yowmal xiyaam boo dekkee di nga paralysé. ah bon waaye Sénégal gi pap yowmal xiyaam dana bari dina bari ay handicapé. puus puus yi dina bëri yowmal xiyaam de. di gis ñu doxee nii. Ah, Pape Samba doo jël kii. ba pare ay eh, seetlu naa lool de pas yëpp pant mais pap yonent bi nee est-ce que du loolu de du fecc ci àddina bala ngay dem bàyyi pant nañu de paayam ñi la ñu doxee léegi bu ñu dem du jutti ci paayam ñu lañu doxé doxee te dégg naa yàlla yenn say dafa am yum lay won fi doog lako won fele fële paayam ñi la ñu doxee am kat jabar yam ñi la ñu doxee sa papa moom daanaka moom nii mais oustaz yenn say tamit yenn say ñaarel ñaareel téye la foo xam wala aawa téye la foo xam ni. fu la ñaareel téye rek aawa téye woon na la fa. waaw dëgg la tamit dëgg la tamit dëgg la tamit mais kon jeng baaxul. déedéet. ok yàlla bugg ko yonent bi bugg ko. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yemale woon ay soxnaam ba bi mu nekkee ci feebar bi ñu koy ñu naan ko féetee la ak Aïcha moo gën a nekk xale mu ne nañ ci waxtaan ba d'accord du ma féetee kenn mukk te war a ay ci kële. pap ay soxna l'islam da cee insister munoo yor say soxna féetale kii samedi ak dimanche. munoo yor say soxna féetale kii guddi. Mhm. alaaji pap loolu du dëgg du yoon jigéen ju nangu nag ñu teg la ko sa problème la. Mhm. mais diine moom waxul loolu. Mhm. kon donc kii yaa borom question bi nee ko. lii dëgg tey yoon mooy ñaari soxna ku leen yor danga leen di yamale. foo fégal fégal nga fa. mën nga jaar nag xool sa njaboot. waaye façon jaar yi xew léegi bëgg a sieste tamit te ayewoo fa. ah gis nga tamit loolu tamit dina jafe diin dindi. <laughs> baax na am na ñu mën eh barki yàlla am na ñu mën bëccëg ba boo ayee feneen wallaay booy dem di yenn ci ñoom sax doo ko tey donte ayewoo fa. oustaz yàlla moo bëgg dëgg tamit danga amagul ñaar rek yow tamit li ngay wax ñu du sa domaine. amagul ñaar rek. mais bés boo amee ñaar. kii dina am lu mu la tàmmal kee am lu mu la tàmmal te ñoom ñaar ku ci nekk tàmm tàmm yu du yeddu bokk. booy làqu di dem ca tàmmin tàmmin parce am na tàmmi tàmmin tàmm tàmm tàmm yoo xam ni. pap dangay ngay jékki-jékki rek namm ko. loo moo tax ñu naan tàmm laago la. pap loo mën a tàmm daal bàyyil ba aye fa mais yor ñaari soxna. te en général kat ñi koy def doo leen ko fooge. mooy yor ñaari soxna féete kenn ki ba ñëpp xam ni kii nga féeteel ay soxna da nga leen di yamale pap waaw wala nga yemale leen di yemale leen ci kanamu ñëpp. de luy loolu mais làqatu bi di dem di di di. di def ñu lay defaral tamit dara nekku ci sa jabar la bu nekkee sa jabar donc donc yow tu veux dire même boo fa ayewulee amuloo droit dem déedéet dafa benn nitu yàlla boo xam dafa aye benn nekk ci ah, non man de man nga dem à à tout moment mais pap xam nga pap dem seeti dem xool sa njaboot gi nga bàyyi ak fi waaye ban da nga leen jox bi la luy problème bi à tout moment sama jabar la pap nga seet si sa njaboot gi nga bàyyi. Ah. ndax jamono léegi tëddee na façon tëddin boo xam ne. dëgg te wóoratul nag. wóoratul dëgg la nga ñëw xool sa njaboot. <laughs> sa aaw noo xam nga jamono bi. neexul mais ñëw ñëw di si sama ñaareel bi laay dem xale la wóorul. dëkk bi dafa naqari. te en général li mais Pape li gën a garaaw mooy jigéen ñi booy sàcc ay. Mhm. dañ koy booy sàcc ay ñoom. Uh-huh. maanaam dañ lay jaay seytaane. Mhm. da ngay ñëw di sàcc ñu yombalal la sàcc gi. parce que dañoo bëgg boo fa jugee nekk bal perdi fa nga jëm doo fa def dara mais li mbëtt bëgg la bar bëgg nag non non non yéen ñaar da ngeen di bokki bëgg-bëgg déedéet pap ngeen ni kiiwante sàcc ay baaxul baaxul fu ñu ko bind yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mhm. te moom maa yantiqu anil hawa du wax ci bànneexu bakkanam ah waaw lu mu wax yàllaa ko wax man nag bànneexu bakkanam ma tax man moom man nay neex rek man maa ngi ci yooyu man nekk yeneen borom question bi nee ko. Mhm. borom këram na leen yemale ku ku yor say soxna da leen a war a yemale. mais kan moo ko ko war a wax jabar ji moo ko ko war a wax moo ko war a wax jëkkër ji. ndax jëkkëram mooy kilifa léegi bu jëkkër ji respecté wul loolu. am na ñoo xam ni papp